mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñuy topp ci màggalub Sarsara édition 2023 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax fas yéene ànd ak yéen ci édition bi nga xam ne nii mboolem taalibe yi ñu ngi ko doon waajal ay weer. tey nag fii ci Touba Darou Manane la délégation bi nga xam ne nii moo ànd ak ONG Ahlu Café ci njiitalu soxna Mami Sa Mbàkke ñu koy ñaanal suñu borom may ko wér ak gudd fan. liggéey bu mu nekk suñu borom mottali ko ànd ak moom ba fas yéene incha allahu rabbi ci yeneen édition yi mu teewe ko mbokk yi xam ngeen ne délégation bi nag la ko dalee tamit dakaar ba ci fii ci Touba ñoom ñëpp pare nan tey nag ñu ngi ànd ak sunu jëwriñ Cheikh Abdoulaye Dieye ci euh, bis bi ñu ci war a dugg dugg nañ ci oto yu ndaw yi itam ñi ci war a dugg dugg nañ ci ñu fas yéene nag départ fii ci Daaru Manaan Euh, fas yéene nag dem fële ca Louga ngir daje ak convoy ndax ren sëñ Sidi dafa joxe ndigal convoy yi jóge Sénégal yëpp ñu man a àndandoo moo tax incha allah suñu demee Louga danañ fa daje ak ay convoy yu bari ñu jóge Dakar ñu jóge Thiès euh, ak ñu jóge ci yeneen gox yi ba fële ca 50 Kër Moussa incha allah suñu jógee Louga nag ba ndekki ba pare nag la ñu fas yéene incha allahu la dem Nouakchott waaye balaa ñuy dugg Nouakchott nag faaw ñu jaar Rosso bu ñu demee Rosso nag foofu la ñuy. defe suñu ay formalité bu ñu defee formalité yi ba pare nag délégation bi nga xam ne ñooñu war a gàttandu fa lañ leen di fekk eh, ñu ànd ak ñoom incha allah ngir fas yéene wéy Nouakchott noonu daal lañ ko fas yéene incha allahu taala départ bi am na koo xam ne mi ngi daan daan dañ ko gis mhm. mbégte mi mu daan àndal dafa mel ni moom nga doon jokkoo léegi soxna si waaw soxna si waaw moom ñëwul nag waaye xelam mi ngi ci liggéey bi ndax yaakaar naa ne saa ma toogee ay quelques minutes rek dina ma woo laaj ma mbooloo mi laaj ma mbaa amuñ jafe laaj ma tam mbaa yéen a ngi ci jàmm wax dëgg yàlla léegi nii bi may woo rek li ma doon doyee mooy ndax départ ngeen wala départ gu leen ma ne ko suñuy départ incha allah la woo kon nag nee na demul mais xelam ma nga fa xam nañ ne nit ñëpp jàppale nañ ko ci li mu nekk eh, ña fay teew tam jëmmam lañ fa teewee xam na loolu biig bi ma demee ci moom di ko siyaare di ko tàggu daf ne ma li ma jàpp daal mooy sarsaar yi ngeen daan def yëpp sarsaar ren ji moo ci dàq sama ñàkk teew du doon dara ndax ña fa ñëpp samay jëmm lañ loolu daal la wax kon nag mbokk yi ñu fas yéene ànd ak euh, délégation bi rek dem ba fële nga xam moom mooy Louga dégg ngeen ni ko Cheikh Abdoulaye waxee ne convoi bi yëpp ren seen siidi dafa bëgg mu nekk benn ñoom ñëpp ñu départandoo moo xam fu waay jóge rek ci réew mi ba ci ak ci yeneen gox goxaan yi yëpp rek fas yéene def benn convoi dugg nag Nouakchott fa nga xam ne ni fa la lépp di dajee ci kanam sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Mourtada euh, moom nag euh, mu fas yéene jiite liggéey bi kon nag mbokk yi ngi gis mbokki taalibe yi waa ahlu café ñu ngi noonu xale yi nga xam ne nag ñoom ñoo ànd rek ñoom loolu lañ leen di wan leen nga xam ne takku nañ ci bopp nag daam kafe ak équipe am pare nañ ñoom ñëpp kon mbokk yi gis ngeen leen noonu ci seen laxasaay ak ci seen maanaam euh, farlu ak pastef bi nga xam ne moom la ñu wane ren ji kon jër yi ngeen jëf mbokk yi ñu ànd ak yéen rek fas yéene jëm jugal yi fa nga xam moom mooy Louga ci li nga xam moom mooy caravane bi بيسا لو ردا دون سوء عند سرسارا لو سنا يواريد وعن البلا ثقات مسقاد لي من بني ديمان أنساره لله كل لدى أبار مكرمات من أرتلنا وفي أجم من سارا إن الذين إلى سرزر خير خسادوا سيارة الفارخو الدارين أو شارا إن الذين إلى سردر قد قصدوا سيارة فارغوا دارين أو شارا naar yaa nga naan diit waay Kajoor a gën sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa gànnaaraay jërëjëf Bamba Dior jërëjëf ci li nga xam ne moom nga yëkkati ci bërëb boobu bërëb bu sell boobu noonu ga xam ne fa jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel noo ngi leen di nuyu di leen siyaara leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di ci jiital nag saahibul fadila jàmbaari lislaam Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér amaat nañ mbégte mbokk yi fas yéene àndaat ak yéen ngir dem màggali màggalu Sarsara édition 2023 tey jii ci altine ji ñu bàyyi ko Touba ci pencum Daarul Mannaan kër Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul altine def ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai 2023 mbokk yi bi ñu julee suba rek la ñu xëyee foofee xam ngeen ne nag bu fukki waxtu ci suba jotee ba toftal fanweeri simili la ñu agsi fii ci luga Louga nag at mu bu ñu fi masaan agsi soxna maam Isa Mbàkke nii lay def wàcc ànd ak bokki taalib yi dalal fi bokki taalib yi am na itam daayira bu leen di teeru jox leen ay berne ñu saafoonte doog a nag waajowaat nag ngir dëgmal euh, lu ngir dëgmal Sarsara mbokk yi loolu moo waral damay ànd ak sama caméraman nu xool jotaay bi nan la bokki accès nan ak akkiyee yan kàddu moo fi jëm incha allah ci fii ci Louga édition 2023 kulli bi saa لوردا دون سوء إن سرسارا لو سنا يواريد وعن البلاس قات مسقاد لي من بني ديمان أنساره لله كل لله أبار ما كرمات من أرتلنا وفي أجم من سارا إن الذين إلى سرزر خير قسدوا سيارة الفارخ دائرين أو شارا إن الذين إلى سردر قد قصدوا سيارة الفارغ دارين أو سارة نار يا غنان دي تواي kajoor a gën sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa gànnaaraay jërëjëf Bamba Dior jërëjëf ci li nga xam ne moom nga yëkkati ci bërëb boobu bërëb bu sell boobu noonu julli ci Seydina Mouhamed di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ñaanal soxna maam Issa mu yàgg fi loolu te wér euh, édition 2023 bi nag dañ ciy sant yàlla ginnaaw suñu borom bàyyi nañu fi ñu fekke ko yàlla doon ko fekkee at bari di ñaanal ñi xam ne ñoo nekk ci yoon di dem sama bi teg leen ci yoonu jàmm dem ak jàmm dikk ak jàmm te lépp luñ fa ñaanit suñ borom bi ful ko def ko ci réew mi di sant waaxlu kafe yëpp rek di leen ñaanal jàmm di ñaan lii yàlla nañ ko yàgg a fekke te képp ku ci dugal sa ñaq yàlla nañ ko yàgg a mban te suñu borom defale ci xeewal yi sax dàkk barki Cheikhul Khadim euh, par rapport ak euh, bu ñu daan ànd ak soxna si gis nañ Pastef bi mm. ndax ren ji bi mu ñëwee li ñuy wax ci yoonu Serigne Touba wi rek amul tànk yi gannaaw tànki kanam la am xam nga ni tey jii ren jii dafa mel ni moo ëpp doole convoi daaw ba te yàlla dogal na ni soxna si mi ngi toog fi barab di liggéey liggéey boobu yàlla na ko Serigne Touba defal ndam te lépp lu mu ci sàkku it yàlla ko Serigne Touba defal mu mel ne tey jii mbooloo min yaakaar yëpp buñ fi woon ndax ñoom xaarim tey si ñu nga fële ca kanam bu fekkoon fii leen départ comme ñëpp dana doy kon ñu wax ki li wax rek tànki euh, yoonu sëriñ Tuubaa moom mhm. amul tànki gannaaw tànki kanam la rek képp ku fi nekk rek nekkal fi sëriñ bi soxna si yàlla na fi yàgg loolu te bu déwénee mu ànd ak ñun ci yoonu wi barke Seexul Xaddim jërëjëf euh, Vieux Thiam sëriñ Tuubaa daa wax ne waaqadi xawaaxi ji la siina daamoo fii xidmatin wa hablahum maaraamoo di ñaan sama borom yàlla ñi nga xam ne dañ koy liggéeyal ëllëg seen kër na nekk ca digg aljana loolu itam sëñ Tuubaa bind na la ko boppam soxna si Samb ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la yéen kàddu ngay dénk bokki taalibe xanaa di leen sant rek ndax yoonu sëñ Tuubaa moom tànk kanam la am waaye amul tànk gannaaw te lii may def moom sëñu ma ko bañ ndax sañ Tuubaa ma ko sant te ñoo ko moom ndax soxna maam Isa bi may xamanteeg moom sama rakk jee tax ma xamanteeg yàlla def loola di dox ba nëga sama ndékki lii tamit muy dox ba nëga ni maa ngi ko jaayanteeg moom ca Sarsara fii dañ ko daan jaay ndékki yi première Sarsara bi ma demee maa ko fekk ca saal ba ne ko maam Isa maama ne ko ndékki lay jaay lugu maama ne ko teggil naa la ko bis naka tey may ñaan nag ci dooree Serigne Touba ak kattanam mag manam ma di ko man bu baax a baax di ko def su ma demee ba mënatuma ko sama njaboot yi di ma ko def maa ngi koy ñaan ci dooree Serigne Touba ndax maa mi kenn mënu koo fay ndax moom dafa baax dugal nu ci yoonu Serigne Touba kon kenn gënu ko kon nag maa ngi koy sant di ko gërëm loolu rek moo doon kàddu yi. dimanche gaawan bokk dimanche ñu jégalu soxna Njawa yooyu gis nga kàddu yi fi mu toll ak liggéey bi fi nga xam ne ànd nga ko bokk taalibe yi waaw ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaana wa taala julliwaat ci yonent bi salallaahu alayhi wa ñu ngi wax alhamdulilahi rabil alamin di santaat yàlla bu baax a baax ba nu yàlla fekkeloo bis bi nga xam ne tey jii la le 29 euh, mais di départ Sarsara soxna maa Isa Mbàkke nekk ci ab liggéey waaye mel na ne Mbàkke mi ngi ci biir mbooloo bi ndax pas-pasam ak yitteem ndax liggéey Sëñ baa moom tànk kanam la am waaye amul tànk gannaaw soxna sax la ñu booleeg moom mooy Sëriñ Tuubaa waaye baatin la ndax mën nañu ko ci télévision bi am ci moom cofeel am ci moom yëg-yëg ndax doxinam ak ni mu mel ak yoonu murit fi mu toll nga sant Mbàkke ba pare di doxi doxinu soxna jaara dox doxinu soxna Maasa Waalo kon soxna si dafa sopplu dafa bëgglu waaye muy ku baax muy ku dëggu muy ku gore yàlla boole ñoo ngi moom keroog ba ma bëggee eh, ñu yëg de fi la ñuy jaar ni ma soxna Jaw fu la ñuy jaar jëm Sarsara man ne soxna Ndey Jaag mi ñu bokkal daayira mu daayira ay raxmati nan ko jaayante donte benn siwa soow ak benn boolu laax ñu dem yut leen ko ay booli laax la ñoon indi fii ak ay syndicat soow waaye sëdd bay dem ba midi mu leen di naajeel mu ne soxna Jaw naa laax yi neex na lool waaye dafay tardé liggéey bi ñu bu jëf ko ay xéewal yoo xam ne macha allah daaw fekkuma fi waaye dama téléphone ñoom soxna Nday Jaag soxna Toola Kase soxna Ayda Caab ñi ma àndal mu daari ak raxmat bi ñu taxaw ko indi xéewal yi ren jiit wax dëgg yàlla noonu ñu ko taxawoo di ñaan yàlla yàlla saxal ko yàlla woo ñun tamit ca Sarsara di taar suñu jëriñ soxna sëñ Vieux Thiam mii waa axlu kafe bu Louga ak soxna Aida Samb mi nga xam ne saa su nekk xéewalam dakk ak soxna Issa mi nekk ci barab bi ak sëñ Adama Jaxate macha allah di santaat yàlla bu baax a baax yal na yàlla doole dimbal ñun ñëpp ci barke Borom Touba. ci turu soxna maam Issa. nee na mel na ni soxna si nekku fi waaye mi ngi fi. ndax ay tànkam a ngi fi. ay bëtam ngi fi. kon nee na li ngeen di jëf dara ump ko ci li ngeen di jëfit gëm nañ ni Serigne Touba tax nee na gëm nañ ni Serigne Touba rek a tax bu ci lenn ngistal amoon ndax bu ci lenn ngistal amoon bu leen bu leen leere ne soxna si du ñëw da di bank seen loxo waaye lii kawe na suñ lool yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla dimbale yal nañ leen fi yàgg a ñun de ñun de ñu ngi jëm sarsaara waaye wérante wuñ ne taxaw wala ñu mën a toog wala ñu mën a toog ba àgg Sarsara seen jëf ji la kon ñoo ngi leen koy seereel kon ko seereel soxna si ngeen ko jaarale mu degal leen jëf ji ci loxo Serigne Touba yàlla na ngeen ko gën a mën képp ku ci def képp ku ci def bu déwénee yàlla na nga a man ku ci a defet yàlla nga am loo def ndax lii kat du jëfi caaxaan yéene la ak pas-pas ndax xam nañ jamono ji ni mu méttee ak fi mu toll waaye lu jëm ci Serigne Touba kenn du ci def di ko yëg kon nag Serigne Touba mi tax ngeen ko def yàlla leen fay neen lu fa jëlee daal yàlla nañ ko bokk ak ci barke Serigne Touba yàlla nañ ko teewaat na gën déwén tem gën a neex gën a ëpp jëf bu yàlla taxee nga wet ca ak nga wét ko ca ñoo ñooyam sëriñ Abdoulaye Mbacke daan wax ne ab murit fu fu mu nekk doon fa benn wala ñaar wala mu di fa ñett ak mu di fa junni ñoo war a bu jëf ji bu yàlla taxee dana day mel rek moom mi ngi Touba waaye jëf ji ngeen jëfaat tey bu ngeen ko daan defal soxna maam sa Mbacke booba de kenn xamut woon nu mu demee ndax boobu mi ngi ci biir jotaay bi di ko gis xolam di ci feex waaye tey jii bi ne que jëmmam wuti na ko waaye xolam teewee na ko ngeen defewaat ko na ko daan defee day wane ne kon jëf ji yàlla rek a tax yàlla yàlla fay leen ci yiw mbokk yi kon mi ngoog dig daje incha allah fii ba Rosso Sénégal Rosso Mauritanie en même ko noonu lañ koy ànd ak yéen ba Nouakchott en même temps ba Sarsara ngeen di ci ànd ak seen bokku taalibe Mortala Kan Ndongal Touba ak ay caméraman am waaye xiru dafa waana alhamdulilah jërëjëf Serigne Fallou Ndoye